waa gars yi fi mu ne campagne ba tàmbali na defe naa comme ni ngeen ko gisee ni yu bees yi yegsi na ñu ngi fii ci New York ci place Mafal Mafal coiffeur incha allah Sonko mooy Jomaay Jomaay mooy Sonko Macky mooy Amadou Ba Amadou Ba mooy Macky gis ngeen ko croix bi gis ngeen leen six ay neuf six ay neuf donc euh, campagne bi tàmbali na ci ñun donc comme ni ma leen ko waxee rek yu bees yee nekk nii lu bari nag lañ ci am ci New York day nekk fii ci place Mafal ah mi ngi nii yegg si na New York voilà donc day ñëw ci place Mafal gis ngeen ko nii on a at least junni ay junni junni junni am na donc fexe leen lu waay man rek nga xéewlu ci ci lu mu gën a gaaw comme ça incha allahu rabbi campagne bi gën a jolli rek voilà nañu fexe lépp lu ñu man incha allahu rabbi ñun suñu candidat moo ñu intéressé te ñu fal ko au premier tour yeneen cam langal yeeg yi ngeen dégg ci palais ba démb ak lafañ yeeg astafurla xam nga waxuma ko pour tuutal leen waaye ña ña soox dem ca palais baak ak def seen njuuj njaaj yooyu yëpp nañu focus fexe leen lépp loo leen man ñëw ci mafaal mafaal la coiffeur ten dollars di nga am bracelet yi ñu fexe ñu def ci lépp lu ñu man incha allahu rabbi pour man koo dugal ci campagne bi ba campagne bi gën a am doole voilà donc euh, fexe leen ko ñëw léegi waay ci mafaal ñëw xewlu ci mi ngi nii mi ngi fii bari na fi voilà yaanaa bokku wa voilà ñëw leen ci mafaal man ngeen dem aussi ci fàllu fàllu aussi am na fa cent vingt et ak sen Nicolas cent vingt ak Saint Nicolas fàllu Euh, ci nabu foofu aussi am na fa voilà donc fexe leen lépp looleen man rek pour soutenir projet bi projet bi il faut ñu dooleel ko xam nga projet bi moom am na doole boppam ba pare waaye dañ koy gën a yaatal rek voilà comme ni ma leen ko waxee projet bi ñëpp a ciy dugg fi mu ne nii les jeunes les jeunes laa wax waxuma mag ñi de les jeunes je parle des jeunes les jeunes parce que bu leen fàtte ne Ablaye Wade ñun ñëpp ñoo ko bokk voilà dama ne les jeunes jeunes yi lay woo wow ma màgget yi dil woowu ma ñooñu léegi xam nañu suñu ay xarit xam nañu ñi ànd ak projet bi ak ñi àndul ak projet bi ma ne xam nañu ñi ànd ak projet bi ak ñi àndul ak projet bi voilà xam nañu ni ànd ak projet bi ak ñi àndul ak projet bi léegi yéen ñi ànd ak projet bi nañu focus focus leen rek focus leen dama ne focus leen rek yéen bu leen yàkkamti parce que en ce moment focus la ñu laaj concentration totale bu leen kenn divertir dama leen di ñaan bu leen kenn divertir ku la saaga jéggal ko ku la accuser jéggal ko ku la xas baal ko ku la tooñ baal ko nañu xeexi pour jël réew mi teg ko ci loxo Ousmane Sonko ak Bassirou Diomaye fay mu sell mi loolu rek mooy suñu combat dama ñun suñu combat fi mu li ci des dinañ ko yeggale xam nga koo mën a moom at any time mën nga koo ñëw fekkaat ci kaw place am nga ñuus ko loolu du problème mais pour mu lay xëcc dañu ne kuy yéeg du xool ci suuf ba pare kuy dem doo doo gestu klaxonnekat yi bu leen gestu concentré wu leen rek parce que koo xam ne yow yaa ko man man ndeyam man baayam kooku bu lay saaga wala bu lay napp wala buy jaay reewande da nga ko fay bàyyi bis boo ñëwee li Ablaye Wade waxoon nga ba ko fa jongal baayam loolu après la loolu c'est pour après Ablaye Wade dafa ne mu ne xale bu la yabee da nga koy de coppet romb ko dem jongal ay ab baayam donc loolu ngay def xale yi lay yab da leen fay romb nga dem jongal seen baay loolu mooy wax ji dama ne nañu concentré wu rek nañu concentré wu ñun ñëpp nañu concentré wu na sénégalais yëpp focus ñun télé bu ñëw ànd ak ñun sa bénéfice la télé bu àndul ak ñun sa pertement la parce que sénégalais yi wan nañu ginnaaw wan nañu ginnaaw ma ne sénégalais yi won nañu ginnaaw tappalekat yi won nañ leen ginnaaw focus leen rek dama leen di ñaan ngeen concentré wu dama leen ne concentré wu leen am na ci ay doomu aadama yoo xam ne seen njariñ yëpp wala seen liggéey yëpp fi mu ndol di mooy divertir man dem naa ba dégg ay nit yi ne sax jënd nañu wala jaay nañu wala je ne sais pas quoi quoi quoi amul problème luñ leen wax rek ne leen leen d'accord ndax lenn laa leen mën a rassurer sénégalais lu ñu leen wax ci Ousmane Tounkara leen moo tey kan moo moom Ousmane moo ko moom Ousmane Tounkara Ousmane Tounkara moo ko moom dégg ngeen Ousmane moo ko moom dama ne nañu focus concentré wu leen wu leen borom tele bu jaay boppam ngeen jël ko fa nekko ko fa ñokket ni yekk bu naqari gars yi concentrez-vous fi mu toll nii dañu toll ci tournant bu critique ci combat bi on n'a pas droit à l'erreur loo gagné ba pare maanaam gis nga combat bi combat bi c'est le nôtre à perdre ce n'est pas le nôtre à gagner on l'a déjà gagné na c'est à nous de le perdre est-ce comprendre nga li di wax mu ne This is mine to lose. This is my game to lose. C'est notre combat à perdre. Voilà. dama ne lii ñun la suñu combat à perdre. C'est pas un combat à gagner, on l'a déjà gagné. Mais c'est notre combat à perdre. ci ñun la dépendre pour ñu perdre ko. télé bu jaay ngoram romb leen ko fa bu leen toog fii di concentré wu diw moo jaay di diw moo jaayul ak diw moo jënd di diw moo jëndul. c'est pas le moment nañu concentré wu nañu concentré wu focus imagine leen man ak doole bi ma am xam ngeen ne doole ñay laa yor est-ce que man xëj naa ci ay lapin fan ngeen mësee gis ñay buy xeex ak lapin wala lion buy xeex ak ganaar loolu mënta nekk lion bu soxlaa ganaar da koy lekk ñay bu soxlaa lapin da koy laxas ci kii bi won na ko that's donc ñoo xam ne yéen leen ëpp doole doo seen morom doo seen moromu bàyyi bu leen fi nekk di werante ak ñoom combat bi c'est un combat campagne la nañu dem gagner campagne bi ay diversion nañ ko moytu nañu moytu tappalekat yi ñi demoon pale xam nañu leen léegi xam nañu suñuy noon xam nañu suñuy xarit dama ne xam nañu suñuy noon xam suñuy xarit xam nañu leen léegi comme xam nañu ñëpp ñu ñu war a xam nañu continuer ñu concentré wu ci combat bi buñ fi nekk di par parloo buñ fi nekk di jëflante ci suñu biir loolu du débat xam nañu ne am na ñoo xam ne ñoom xam nañu li ñu xam mais dañuy ne teg focus dañuy ne focus rek incha allahu rabbi nañu focus nañu xeex nañu dem focus xeex jël réew mi teg ko ci ay loxo yu baax yeneen yëpp ay détail la ndax ku la ne jomaay du sonko rek xam nga ne kooku noonu Sénégal sonko mooy jomaay jomaay mooy sonko te ñun dinañ ko safal sap voilà Amadou mooy Macky Macky mooy Amadou di nga gis nag ay nit yoo xam ne comme ni ngeen ko xamee ñoom du ñu bëgg ngeen concentré wu dañ leen di bëgg a déstabiliser wala déconcentré bu leen ko def restez concentré fi ma ne nii nag maa ngi ci place su Mafal ma fal le maa ngi koy yóbbul xéewalu xéewal yu bees yi xaaral ma ci biir voilà ñu ngi ñëw ci place ma fal jox ko bracelet yu bees yi ñëw leen jël ci bracelet yi yéen ñëpp jënd ci. dégg naa ñu ngi lay woo léegi léegi léegi ñu may tàggee. non non ma sama famille ñu ngi may boole ci ay tàggee. waaw yàlla baax na kamat. waa kooku na ko yàlla yàlla na ko yàlla. <laughs> waaw yàlla na ma yàlla continuer de. <laughs> asalaamualeykum wa rahmatullah. siyaar naa la Pape. jërëjëf jërëjëf Pape jërëjëf Pape jërëjëf Pape jërëjëf Pape jërëjëf. ñii moom dee nañu. <laughs> jërëjëf Pape. sonn nga lool sonn nga lool. jërëjëf Pape eh, eh, jërëjëf. yàlla ngeen am ndam. amiin Pape jërëjëf jërëjëf Pape. dama ragal dama ragal. Mhm. ñu sàcc. mënul nekk ñun ñoo leen ñun ñoo leen gën a nekk jàmbaar ay tappalekat lañ du jàll seen yooyu du jàll Pape yooyu xewi na ma faal mu ne ma indil la yii. léegi compté ko ba xam après bu mat lu mu mat ma matali compté ko ah ah waaw moo tax ñëw na léegi bu bees bi la waaw waaw bu bees bi la léegi jàppal ma ma takkal waaw allo waaw xaaral ma takkal la benn yow yow doo fay yow moom doo <laughs> lay takkal ndax am ci xéewal la ñaari yooyu soxla ci yow incha allahu rabbi ah. te lan la ay bracelet la kan. bracelet yu bees yi Ousmane Sonko yu bees yi. waaw dañuy taal lamb léegi incha allah.